le président du conseil économique et social di nuyu la présidente du conseil constitutionnel suma yaay Aminata Mbengue Ndiaye <laughs> j'espère que je me suis pas trompée si c'est le cas veuillez m'en excuser puisque cela fait trois ans que je suis hors de ce pays <laughs> je suis donc naturellement un peu déconnectée de ce qui s'y passe même si je suis la grande majorité de tout ce qui se passe ici di nuyu sama mag Innocence Ntap Ndiaye di nuyu le président Abdoulaye Daouda Diallo di nuyu le premier ministre sama mag di nuyu it sama papa Moustapha Niass di ko xamal ni am naa mbégte tey gis la fii ba ma fàttali ko bés bu rëy ba ma paase woon fële ca kër ma jabel am chance bu rëy gannaaw ba nga ma yóbboo ci suñu maam jooju sa waajur wu jigéen mu ñaanal ñu maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp di nuyu sama nijaay sa Seck di nuyu kilifa diine yi kilifa caada yi kilifa yi nga xamante ni nii ñoo ne ci société civile monsieur le président de la république bala dara may dellu di la feddali sama kóllëre ak sama sant yoo xamante ne nii am na fu mu commencé waaye amul fu mu jeexee ci fànn yu bari nag moo ko waral bi ci njëkk mooy bërki dem boo njaay dafa am jafe-jafe yu ma fi dund ci kàttanu sunu boroom te seetaanoo ma ci benn yoon foo toll yaa ngi may nemmeeku di yónni say nit ñu may nemmeeku di ma taxawu kon loolu maa ngi la ciy gërëm di la ci sant gannaaw ba ma sante sunu boroom beneen bi it di bi nga ma invité ci bés bi tey ma ñëw ci loolu pour man dafa am firnde yu bari te li muy firndeel mooy jox nga ma cër bi nga xamante ni nii moom laa am ci Sénégal ma di ko sante suñuy waajur di la ci sant waaye it jox nga artist yi cër bi nga xam ni moom lañu am Sénégal ndax aar defe naa ni kenn mënu koo def ci am réew ndax defe naa ni am réew kenn mënu koo sos début ba ba ca fin ba génne ci aar ndax ni ko Senghor doon waxee la culture est au début au milieu et à la fin de tout kon maa ngi lay gërëm di la sant ci sama turu personnel mais aussi ci turu artist yépp ci teewaay bi nga xamante ni nii tey def naa ko fii di xamale nag ni tey am na mbégte ñëw teew fii ndax raison yu bari ndax bu nu nee dialogue national mooy di waxtaan waxtaan nag ñi ko seq dafa nekk ay acteur mu di góor mu di jigéen mu di mag mu di ndaw ak ku mu mën a doon ñu bañ a xeeb kenn te waxtaan nag ñi nga xamante ni rek ñoo seq société bi ñoo ko war a mën a bokk ndax li nga xamante ni nii ñépp dañ koo bokk defe naa ni dañu war a toog ñu waxtaane ko te li nu war a waxtaane Sénégal defe naa ni bari na ma di la féliciter ci li nga initier dialogue national bi ndax defe naa ni dialogue national moom dafa bokk ci suñu culture bokk ci suñu tradition ndax depuis Senghor ba léegi kilifa gu fi toog rekk woote ne dialogue national kon tey le fait que nga ñëw initier lii dafay nekk continuité ci liggéey bi nga xamante ni nii moom ngay liggéey mais aussi image bu taaru bi ñu xamee Sénégal ndax ce n'est pas pour rien ñu ne Sénégal mooy le pays de la teranga teranga nag bu nu koy wax dafa ëmb lu bari li mu ëmb mooy waxtaan li mu ëmb mooy déggoo li mu ëmb mooy booloo pour xool nu nuy régler jafe-jafe yi mais lépp ci sérénité ak ci dal ak ci àndandoo man nag en que artiste mais aussi jigéen di liggéey ci lu bari ci société bi jaarale ko ci sama métier am na ci dialogue bi ay pàcc yu am solo monsieur le président yoo xam ni amal na ma solo bu njëkk bi moo di d'abord aar bi nga xamante ni nii mooy sama métier te bu ma sañoon nga xool aar boobu nan lañu ko gën a mën a améliorer pour gën a dolleel ñi nga xamante ni nii ñooy acteur culturels yi naam jàng sax am na solo ndax jàng dafay tax nga xam fi ngay taxawee ak ni ngay waxee ak ni ngay defee waaye ku jàngutit war nañ laa mën a jàppale ba nga formé wu ba tax na bu ma sañoon monsieur le président de la république xam naa ni gaa yaa ngi koy def te bokk na ci say programme waaye nga gën a dooleel acteur culturels yi gën leen a dooleel ci ay création d'infrastructures culturelles yu tax saa yu ñu amee seeni programme ñu war a mën a dem produire fa ndax man damay faral am chance wër àdduna di gis ni que la musique est un excellent vecteur de communication à travers la musique nous pouvons changer les mentalités nous pouvons faire bouger les lignes nous pouvons créer ce que l'on appelle la paix renforcer plutôt la paix la cohésion sociale et la sécurité ndax way rek mooy li nga xamante ni nii moo dul fay gis naa ni yaa ngi dooleel sport bi ndax de loin gis naa stade bu taaru boobu nga xamante ni nii defar nga ko fi mu di stade lay Wade ma amoon tristesse bu mag ba ma gisee ñu koy inauguré te nekkuma fi ndax xam naa ni sañ bu ma sañoon teew fa waaye bu ma sañoon ni nga defee ay infrastructure de sport yu mel noonu ñu gën ko am ay salle de spectacle ci gox bu ci nekk Sénégal ndax Sénégal du Dakar rek ndax ñene Louga tey jii bu ñu nammee seen artiste bëgg ko gis wala ñene Fatick wala ñene Ndar wala ñene feneen ak feneen du ñu mën a ñëw tout temps ñëw Grand Théâtre wala feneen te defe naa ni tey jii bu ñu amee ay infrastructure culturelle dina tax ku mel ni man yoo xamante ni nii répondre na ci norme yi lu mel ni ay centre culturel même bu dee mille cinq cent ou deux mille places lay def mais qui répondent aux exigences de l'industrie de la musique dina baax ndax dina tax ñu mën a organiser ay tournées culturelles yoo xam ne nii dinañu gën a jaay suñu aar te defe naa ni monsieur le président jaay suñu aar mooy jaay aaru Sénégal mooy yëkkati drapeau Sénégal mooy tax Sénégal gën a jëm kanam mais ñu def ko ci condition yi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii moo gën a taaru kon loolu bu ma sañoon ci sama tour ak ci turu artiste yépp vraiment ci sa euh, euh, at yi nga xam ne yaa ngi wéy di liggéey nga créer ay infrastructure culturelle pour artistes yi mën a def ay tournée ndax ku mel ni man tey bu ñu ma woowee ni ma kay tëgg Tamba la may njëkk a jaaxal mooy hôtel ba may dal ndax am naa xëy na sama train de vie waaye bu loolu wéyee dama ne waa léegi ban salle lay tëggee dañ lay yóbbu ay salles yoo xam ne léeg-léeg làmp ya sax day fay te defe naa ne sa image dina toll foo xamante ni nii doo ko fas doo koy bëgg léeg donc loolu nekk na loo xam ni monsieur le président ci turu artist yi daal ñi ngi la koy ñaan muy benn pàcc ci volet culturel <laughs> xam naa ni nag yaa ngi ciy xalaat te yaa ngi ciy liggéey waaye dañu la koy ñaan ci turu artist yi beneen bi it monsieur le président xam naa ni ba tey jox nga ko solo bu am solo moo di jigéen ñi seeni àq ak seeni yelleef ak xale yu ndaw yi seenum njàng te boo dee xool jigéenu Sénégal dañu am jom dañu am dynamisme te gis naa ni ci biir mouvement yu bëri yoo créé wala ay institution yoo créé yu mel ni FAISE ñi ngi soutenir di financer jigéen ñi pour ñu gën a wone seen xarañ gën a wone seen jom gën a wone seen liggéey waaye bëggoon naa monsieur le président de la république nga gën a renforcer le pouvoir des femmes par l'autonomisation de la femme par la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership féminin mais surtout pour le respect scrupuleux de leurs droits parce que beaucoup de femmes sont bafouées généralement en Afrique te loolu yépp defe naa ni yow yaay suñu kilifa yaay suñu papa yaay suñu président defe naa ni yaay suñu héros suñ ko mënee wax ñun jigéen ñi kon yow rek yaa ñu ci mën a jàppale. beneen bu mujj bi may tëjee monsieur le président ngeen baal ma man gis naa fii ñoo xam ne ñu ngi doon wax 30 minutes. <laughs> bu mujj bi monsieur le président moom lay tëjee boobu moom appel bu may def ci jeunesse bi la ndax gis naa ne jamono yi Sénégal xaw na xaw na jaxasoo ndax it euh, euh, man li ma xam ci Sénégal mooy Sénégalu teranga Sénégal avec une belle image boo xam ne man yàgg naa am fierte di yëkkati drapeau Sénégal mais bu ma nekkee à l'étranger di gis Sénégal j'avoue lu bari dama ci am kersa ndax li nuy gis muy violence population bi di ko def musuñu ko xamee Sénégal moo tax may ñaan ndaw ñi à plus de sérénité à plus de responsabilité à plus de citoyenneté et à plus de civisme ndax ki nga xam ne moo jóge bitim réew ñëw investir ubbi fu mel ni benn centre commercial wala mu def ay infrastructure kooku dafa bàyyi réewam gëm Sénégal ñëw investir Sénégal bu dee mer nañu taal ko wala ñu taal bus ñuy jànge suba ëllëg day tax tous les investisseurs daw le Sénégal parce que dañuy ne le Sénégal est un pays violent alors que moi je me le refuse le Sénégal fait partie des plus beaux pays le pays qui nous donne autant de fierté le pays pour lequel nous avons toujours la fierté de brandir le drapeau moo tax may ñaan acteurs politiques yi acteurs de la société civile la jeunesse ñëpp retrouver wu autour de l'essentiel pour la non-violence au Sénégal jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm gi leen sant xanaa dama koy tëjee rek sama woy wa daal sama way wa ma waxoon laa koy tëjee monsieur le ministre Amadou Ba sunu Sénégal réew mi ñoo ko moom bu nu ko yàq sunu Sénégal réew mi ñoo ko moom bu kilifa diine yeeg bu aada yi ñepp nanu booloo parti au pouvoir ak opposition nanu diisoo sunu Sénégal gaal gi warul suux nanu diisoo réewum Sénégal gaal gi ñoo ko moom bu nu ko yàqee. <laughs> merci beaucoup jërë ngeen jëf merci tonton. merci beaucoup madame Coumba Gawlo Seck ci turu artiste yi. may fàttali ni am na commission bu toppatoo culture ak aada bokk ci commission bi yoon wàllu social donc mën nañu recevoir seeni proposition ci dialogue bi donc le dialogue est ouvert à l'ensemble des acteurs incha allah nañ leen jox dinañ leen mën a recevoir ci lool léegi nag euh, xel de fàttu dama tëboon ci liste bi représentant d'une des organisations religieuses Serigne Matar Kébé cité woon naa ko der si orateur yi est-ce qu'il est là sur place waaw sëñ Matar Matar Kébé du RIS ah il n'est pas là donc voilà dans ce cas je vais demander à ceux qui voudraient bien prendre la parole de reporter ça aux prochaines plénières et dans les commissions, une fois que ces dernières seront instituées. Alors je voudrais, mes chers compatriotes, d'abord féliciter tous les orateurs qui ont pris la parole cet après-midi dans le cadre de l'ouverture du dialogue national. Et je me réjouis de la diversité des points de vue. Chacun a pu s'exprimer librement, à donné cours à ses idées et je n'ai aucun doute que les discussions qui suivront cette séance d'ouverture du dialogue pourront approfondir les différentes questions. Le dialogue devra s'organiser autour des commissions que j'ai indiquées dans mon propos liminaire. Il nous faut dès à présent finaliser et au plus vite les TDR du dialogue, les termes de référence. Je dirais d'ici le week-end. Maintenant, il faut travailler tenant compte des délais imprescriptibles du processus électoral. Donc, euh, d'ici vendredi, samedi au plus tard, il faut que chaque parti puisse faire parvenir ses propositions en matière de termes de référence dans le dialogue. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui a été dit et sous la conduite du président Moutafanias, un secrétariat sera mis en place pour cela et enrichi par les différentes propositions des partis. Je rappelle que ces locaux qui pourront abriter certaines commissions, la plénière, ils disposent d'une euh, salle de 120 places peut-être. Euh, certaines discussions pourront se faire à l'immeuble Bourgie, par loin d'ici, au deuxième étage, un Bourgie face à la Société Générale, et contigu à l'IPRES, donc c'est facile à, à localiser. pour pouvoir également donner la constitution des commissions. Je demanderai au ministre de l'Intérieur qui avait suivi, qui avait assuré le secrétariat du dialogue politique de faciliter le contact et la collecte de ces TDR qu'il faudrait transmettre euh, au niveau de la présidence du dialogue. Nous pourrons recueillir en même temps la désignation des représentants les partie un dialogue. Et là où nous avions des commissions qui sont restées fonctionnelles, nous pourrons consolider. Donc, ces présidents de commission, ça ne sert à rien de reprendre le travail. Ces rapporteurs, là où il faut corriger, remplacer, nous pourrons faire très rapidement ce travail afin que tout le monde se mette à la tâche. Je souhaite également que les délais du dialogue soient des délais raisonnables, enfermés en tout cas au courant du mois de juin. Il ne faut pas qu'on sorte de ce mois sans l'essentiel des résultats et recommandations du dialogue. Parce que s'il y a des actes qui nécessiteront des lois ou des de règlements, des décrets, il faut bien avoir le temps. Et donc, euh, il faut que l'essentiel soit fait. Il n'est pas dit aussi que nous serons d'accord sur tout. mais au moins sur l'essentiel des consensus et des compromis qui pourront être trouvés, il faut qu'on mette à profit cette période du mois de juin pour arriver à faire avancer euh, nos discussions. Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit de façon simple dans mon propos liminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien, qui sont appelés au téléphone, qui sont menacés de mort, dont les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une république. Et ça le sera ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. C'est le problème. contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. Ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce n'est pas nos forces de défense et de sécurité.